di leen ndokkeel ci weeru kor wi nu génn ak kor yi di bala àq di ñaan sunu boroom boo leenu jégal di jiital ci loolu lépp cheikh Mouhamadul Muntaqa mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ bu mag bi di kilifa ak yoonu murit wépp ak mbokkam sëriñ Abdullahi yàllaay buur mi nga xam ne moo fi nekkal ki nu fas yéene waxtaane di boroom shammam Mame Mor Diarra di leen ñaanal sunu boroom dolli leen jàmm te dolli leen i ndam fan yi fan yi ñu toll day fani fàttaliku borom Sam Mamour Diarra diggante mujjug Ramadan ak nisfu Shawal fukk ak juróom ci Shawal nga xam ne mooy bis bu bi mooy fan yi nga xam ne fu ñu ci tolle rek dañu koy fàttaliku fàttaliku warul di jóg ci sunuy xel waaye. mooy fan yi ñu ko tànnal di ko ci di ko ci di ko ci gën a fàttaliku di ko ci gën a bàyyi xel te ci gën a jàngat ak uh, fàttaliku ak dundam nga xam ne lépp darsi la kon noo ngi ci ndokkeel mbokk yi mbokk yi ñu ko bokkal yëpp di ko teg ci loxol ki nga xam ne mooy moom lañu moom la def mu yor kàddu kër gi di sëriñ Abdul Qadir Jili Lappe nga xam ne bu yàggul la ko sëriñ bi la ko sëriñ bi tànn noo ngi koy ñaanal tawfiq waaye di fàttali ko ka ñaanal ki nga xam ne moom la fi wutu di sëriñ Cheikhouna Cheikh Penda yàlla na ko ñaanal sunu borom dool di ko yërmande nga xam ne moom it doon na rafetal kem kattanam noo ngi eh, amele jataay bi itam ci xalaat ak taxawaayu eh, al lajna thaqafiya commission culturelle bi nga xam ne moo ne ci kër gi te ki ku jiite di sëriñ Moxtaar Mbàkke mi nga xam ne teewee na jataay bi am ci yitte lool am ci taxawaay lool kon ñëw ngir jàngat dunduk Mame Mor Diarra fàttali ko mu nekk war a nekk nag bind ndax sunu borom dafa wax ci alquran ni laqad kaana fi qasasihim ibratun li ulil albab maanaam ak waar la war a doon ak jéem a roy ay jikkoom ba <clears throat> jële ca loo mën a dimbandikoo ci sa dunduk àdduna ak ci sa dunduk àllaaxira borom saam yonante bi lañ ko tuddee sallallahu alayhi wa sallam wax nañu ne sëñ bi waxoon na ko ne ko nee na yow la yaa ko gënal ci ñiñ ko tuddee yow la ci gën a sopp loolu lépp day dellu rek ci xusuus yi nga xam ne sëñ Tuubaa am na ko ci yonante bi sallallahu alayhi wa bu ko defee kon moom moom nag du taawub Maam Mor Anta Sali mooy waay juróom mooy waajuram mooy bu góor waaye du ab taawam du ab taawam loolu itam dañ ci mën a mën a jàngate am na nattali bu ñuy faral di dégg ñu ne Maam ba mu demee ca dëkk ba ca Saalum doon fa jàng sëriñ bu baax ba ko doon jàngal def ko ne da am njaboot ka ngay jëkk am na ko tuddee yonente bi waaye ka topp nang ma ko tuddee waaye day mel ne këm jëkk am nag sëriñ Mbàkke Anta la Maam Mor du taawam kon sëriñ Mbàkke Anta la jëkk am gannaaw bi la am borom saam tudde bi sëñ bi ñëw mu tudde ko mu tudde ko sëriñam boobee maanaam wala mu mu mu mu dolli ko ci turam niñ ko ni ko ni ko téere yi nettalee ba tey soxna jaara mooy way juróom waaye waaye ba tey mooy taawub soxna jaara maam Mor jaara mooy taawub soxna jaara foofu it danañ fi danañ fi fi jël benn xisa buñ fi nettali boo xam ne da xam ne lii dana ko dindi mu dana ko dindi am na yàgg nañ ko wax nag ci ci yàgg nañ ko wax nit yàgg nañ ko dégg muy maam jaara amoon nañu jiitu borom saam yàlla dogal ñooñu dañu buñ buñ juddoo duñ yor melaw nit dañuy xaw a bari ay xar baax ak i ngëneel buñ demee ba bala ñoo ferawal buñ feree rek daal di daal di wujji seen borom nee na ñu ne Maam Mor Jaara ba mu ñëwee moom dafa mel amul genn genn ràññi ko maanaam dafa mel ne nit ñi moo tax mu ne fi bi sëñ bi ñëwee indiwaat melaw ñooñaa di feeñal xar baax ci ndawam ne na soxna Asta ne ko kii moom du koy dem yu mel noonu xisa yu mel noonu nga xam ne xisa yi ci ëpp daanaka xisa yi diiwaankat yi la woon waaye waaye li lay xamal ne wéerut mooy maamoor Mor Jaara mooy taawub Soxna Jaara amul fenn fu mu saxe ci taarix ne Soxna Jaara am na ku mag Maam Mor Jaara loolu moom amul boo amoon ku ne dana xam ne barab sàngam ndax sa ñeent ñi mu am ñëpp xam nañu leen muy ñoom ñaar ñooñu ak Cheikh Habibullah ak Soxna Fatima donte euh, kaam xamaatuñ ci moom dara gannaaw bi ci ci ci xikma ilahiya waaye teewul xam nañu leen bu ko defee kon waaye juróom mooy Maam ci wàllu wàllug wàllug wàllug wàllug baayam maam Mor Anta Sali Muhammad la tudd maam Mor Anta Sali maam Balla Aysa mooy waajuram moom lañuy wax Habibullah la tudd moom it na ko maam Balla Aysa Muhammadul Kabir mu gën ko mii ci maam Maaram mooy mooy mooy waajuram maam Maaram mi nga xam ne moom <clears throat> daanaka man nga ne askanu wàppi askanu Mbàkke wépp mooy mooy mooy seen maam moo tax ñu nettali ne sëñ Fall daana wax mooy sunu ma àddanaan àddana mi nga xam daanaka mën nga ne waa Quraysh gépp bu ko defee ñoom nag ñoom wetuk bàyyam googu ay shorafa lañ ay shorof ay sharif lañ ay seeti yonent bi lañu sallallahu alayhi wa sallam sëñ Mor Lamine Jagana sëñ Mor Lamine Diop Dagana rahimahullah wa radiya anhu <clears throat> tegtaloo na ci ne sëñ Moxtaar Bintaloo moo ko nettali ne ko mas nay waxtaan ak sëñ bi bu tudd génn giir ca gànnaar nee na sëñ bi ne ko xanaa xamoon ne ñooñu ñooy sunuy doom bi bàyyi ñoom boo mbakkee te ñooña giir lañu woo xam ne dañ ko dañ leen di la ci sharaf ci seetoo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo dee watug ndaayam soxna jaara moom werante amu ci amul ta soxlawul taayul maanaam ay seeta yonent bi lañ sëñ Moussa Ka <clears throat> am na xasida goo xam ne tàmbale na càllala gi ci soxna jaara ba ca ba ca ba soxna Fatima moo tax sañ Mad Lamin ne wa haulaai sharafuhum saxiix wa nasabuhum muthbatun ila al imam alxasan ibni ali ibni abi talib mu ne ñoom moom ñoom waa mbosoo bi seenu sharaf lu wér la seenu askan sax na tàmbale ci moom ba ca ba imaamu xasan mi nga xam ne mooy doomi soxna fatima di doomi yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam soxna jaara di woon ku ku farlu ci yar ak njabootam sëñ Bachiru nee na moom ci boppam jëmmam ci la jëmmam la jëkk a farlu ndax nee na soxna jaara ku baax la woon ku fegu la woon ku jébbal léppam boroomam la woon ku daa taxaw ci wartee fi diinim la woon la ca war digganteem ak boroomam ak la ca war digganteem ak sëriñam ba mu nekkaloon di Maam Mor Anta Sali ak njabootam daal leen waxtaane doxiinu gaañu baax ña na banaan leen min dëbbi saalixiina qiyaamul layli bokkoon na ca doxiinu gaañu baax ña tax fanaanee taxaw guddi sëñ Bachir teg ca ne sëriñ bi ba mu ko déggee la génn di taxaw ci ëtt bi boobu sax dalagul jàngi fas yi ngir lam ko ne loolu doxeenu gaañu baax ña la itam gis nga itam ci biir téere boobu mu waxee loolu di menanul baaxil xadim ci la wax ne Maam Mor Jaara ab dogam guddi gu ne téeméeri rakkale woon kon day mel ne loolu lépp soxna Jaara moo ko jëkk a suuxat ci ñoom ci mën a fanaane taxaw guddi xam nga ne téeméer rakka ku ko julli ci guddi fanaane nga fanaane nga taxaw kon soxna Mamour Mamour Jaara fa wala bokk li li li sëñ Bada Lamin tagge sëñ Tuubaa ne sharifun umman wa aban loolu rek lañ koy wax ndax moom loo taggee sëñ bi ci bokk rek tàggee nga ko noonu ndax ñëw bokk lépp kuy mbokkam rek di mbokkam ku ne nu mu demee ci sëñ Tuubaa rek noonu lay ci wàlluk bokk noonu lay demee ci borom saam kon mi ngi feeñ jamono mille cent jamonoy 1267 ci gàddaay gi ci la feeñ ci tool du sori 1850 51 ci ati tubaab yi ca Mbàkke Bawol la feeñe dëkk boo nga xam ne maamam mam maaram boobu nga xam ne maamam mam maaram la ko dammel mari ngoone di ñuy mari ngoone mayoon mu mu sanc ko atum chaqdat niñ koy tënkee di 1194 ci gàddaay gi dosor yi 1780 ci ati tubaab yi mbàkke mbakke gii nga xam ne mooy mbàkke bawol nga xam ne man nañ ne mooy ndayi mbàkke yëpp ma wala boo yu ci bari lu dul mbakke jolof nga nga xam ne moom moom la moom la moom fa lañ dëkk fa lañ cosaano nga xam ne moo indi bi ñu ko mayee suuf ci bawal moo tuddee ko mbàkke bawal gannaaw bi ma Mor Anta Sali bi mu demee Kajoor gannaaw jihaad ja ba mu fekkee Lat Joor ba mu ko mayee suuf moom it da koo tuddewaat mbàkke yi di mbàkke Kajoor aci ba ci mbàkke yi ngay déggat yëpp doomi soxna la kon moom ci biir a ilmiya la feeñe xam-xam niti xam-xam lañu niti daara lañu kon danga nga xam-xam ne ba mu ba mu tollee ci jàng jàng la war a jàng fii doomi soxna tàmbaleem jàng mooy alquran wax nañ ne ci way juram ak mbusu ak ak nijaayam ñoom daanaka moog sëriñ bi génn nañu seeni seeni bokk ci njàng diggante ba ma Sali sëñ Bousso bi sëñ Sàmbata Kulóor Ka mi nga xam ne moog ma Anta Sali seen ñaari ndey bokk lépp daanaka génn nañu diggante boobu ci la jànge ba wattu alquran wattu ko wérlu ko itam wérlu ko gis nga sëñ Mat Lamin ci télé bi ma nga ba muy tudd Saalum ma nga naan boobu Maam Mor Jaara mi ngi ci dëkk bu bu génn dëkk bi ñu nekkoon ngir di wérlu alquranam mujj na mujj na di di di moom bokk ci nga xam ne ci mu saxexaw ne lañ bokk nga xam ne képp ko wérlu alquran ci moom ci moom ngay ñëw gis nga ca marché yëpp sëñ Bàkki bu sa sëñ Moussa Ka mi ngi koy wax ca yow ya at alxaaji cheikhu buuso laxase saalum ñëw bawal di buusu ànd ak sëriñ Mbàkke ñu jaari mbakke ngir sàkku al ngir sàkku alquran ju ànd ak barke naam loolu moo leen andi Mbàkke waaye ci fan lañ ko doon sàkkoo mu ne sëriñ Mouhamad Jaara moo leen tooral boobay ku fay ku fay kaang fóori moo lay seetal kon foofu la àggoon ci alquran ba kuy kaang kaang mooy ku wat alquran lool Maamar Jaara moo lay moo lay seetal sag wattu ba xam wérlul la ko ba mu wér foofu la àggoon ci alquran daal di tàmbalee jàng jàng xam-xam jàng xam-xam jànge na ko ci kilifaam jànge na ko itam maanaam jàng na ci kilifaam waaye jànge na itam ci saalum ay kilifa yu fa nekk xam-xam itam doy na ci sëkk boroom xam yi nga xam ne seede nañu xam-xamam li wolof di wax buñ ne diw baax nañu ne ndax bokk yaa ko wax waaye buñ ne diw am na xam-xam mën nañu ne ndax boroom xam-xam ya ñoo ko ñoo ko seere ndax ñoo mën a xam ku am xam-xam dëgg buñ jëlee ko mel ne sëñ Muudu Busa doon boroom xam-xam lool di taawub sëñ Bakki Busa ba muy ba mu koy marsiyaal euh, nga xam mi ngi abyaat yu neex ya mu tàmbalee waaye nga xam ne ci balaaxam mi ngi ci wane xam-xamam bu bari dafa ne fayaa chumanain jaa ana mutaassifan yuxaatibuna wa damu fawqa bi mu ne ku bari gaaf tàggikat bu bari gaaf la ñu gis tey mu ñëw di wax ak ñun waaye li muy wax lépp rangoon ya ma ngay sotti ca dënn ba mu ne fa qultu lahu ma baalu dam'ika yanhami fa qaala faqatna al aala ana xibral makati bi mu ne ma ne ko lu xew ba sa rangoon yi sotti ko mu ne dañoo ñàkk léegi kat ki nga xam ne moo doon fóoréew daara yi daara yëpp moo doon fóoré ji muy Mamour Diarra kon loolu mu ne Muhammada Diarra al Murtada man bi sabqihi aqarrada wal qurba maan kal ajanibi Amor Diarra mu baax mu ñu gërëm mi nga xam ne mbokk yi seere nañu ak jiitoom ci xam-xam waaye jàmbur yi seere nañ ko kon loolu loolu mooy wane xam-xam bu bari sëriñ Ahmadu Soxna Mbakke moom it di borom xam-xam loolu di bindkat noonu la seeree xam-xam dafa ne wala yafxaril yawma qawmun bil yaraa'i fala wala xawfun alayhim fa man yaxshawnahu dahaba moo ne tey daal tey daal bindkat buy bind ci xam-xam jërul ngay ragal man ngaa jël sa xalima bind te damu bu la neexee ndax que ñëpp ragaloon ba ci teewaayam nga xam kenn ñemewute bind ci kanamam ngir xam-xamam bu bari kooku tu fi mu ne wala wala yarqi man chaa awaadal manabiri id maata alladi yattaqihi kullu man xataba kum neex na yéeg min bari min bari ta te xutba wax lu la neex ci xam-xam ndax que ñëpp ragaloon kenn ñi mu wut sa kaddu ci wàllu xam-xam ci teewaayam kooku nekkatu fi kon wane na loolu rek dañuy firndeel xam-xamam bu bari ci jamonoom nga xam ne booy lim ñi fi ëpp xam-xam ci la ci la bokk xam-xamam itam bokk na ci la koy firndeel loolu ci la bindkat yooyu borom xam-xam yi ko seere waaye kilifa yu bari ci yoonu murit buñ leen dee boo dégg ñu waxtaana seen siira danga ci dégg ñu ne jànge nañu ca Mamor Jaara loolu itam di wane xam-xamam naa ci tudd ñaar rek ku mel ne Serigne fàllu mi nga xam ne sëñ Maodo ture doon na ko mm, misaal di ko melal ba naan fa alfaytuhu bahrayni juudan xekk wa hikmatan yow fu yamuuju bi am waa jin nada wa dirayati mu ne ba ma ñëw fekk dama fekk muy ñaari géej di géejug tab waaye di géeju xam-xam di sànni duusi tab waaye di sànni duusi xam-xam sëñ Fall noonu la meloon ci xam-xam nga ne nga xam ne foo ko foo làmb rek moom mu génne la loo xam ne ñëpp dañuy yéemu xam-xam ci fànn xam-xam yu bari sëñ Fall moomu sëñ Maam Mor Jaara moo ko jàngal loolu moo moo sabab sax mu tabaxal ko waaye bokk wala bokk na ci jumaa ji ci Mbàkke nga xam ne ba mu koy ubbi ña ko fekke natt nañ ñu dégg ñu ne dafa ne sëriñ bu la jàngal bu ne ameel nga ko àllarba moom mii nag damaa xam ne amul àllarba ju koy gënal tabaxal ko néegub yàlla moo tax ma tabaxal ko ko jumaa jumaay sëñ Fàllu jooju nga xam ne fi mu ne nii moom la sëñ Abdoulahi yàllaay buur di di di di yokkaat di ko di di ko ko di ko di ko yokkaat di ko yaatalaatal na sëñ Abdoulahi doon yaatalale sëñ Fàllu jumaa ji gannaaw bi nga ko jullee 63 rek noonu rek lay def ci jumaa ji moo tax sëñ Abdoulahi ñëpp dégg nañ mu ne jumaa ji defaraat gii mu koy defaraat mu ne ngërëmul sëriñ fàllu laa ciy sàkk noonu la ko waxee ndax sëriñ fàllu moo tabax jumaa ji moom rek la koy yeesalal di ko di ko dëppaleeg jamono loo it mënut ta ñàkk ndax dox doxinu jamono moom mel noonu waaye bokk na ci kon sëñ fàllu nga xam ne jàngal na ko nee naa la xam-xamam bu bari waaye sëñ Mbàkke Buso mi nga xam ne sëñ Bachir da ko tuddee aalimul baladi wu mufti borom xam-xam réew mi nga xam ne mooy mufti réew mi ko am lu la jaaxal ci réew mi rëpp ne moom ngay moo lay ubbi kooku ca ca ca Jaaral la jànge sañ Moussa Ka ci marsiyam boobu ba tey dégg nga muy wax naan manga taaree moom sañ Bakki Busa manga taaree fa sayxu Mamor Jaara tërbiyoo fa Bamba mu rëy daara kon loolu itam firndeen la loolu ñu ñëw gannaaw xam-xam xam mu ñëw ci ak jaamu yàllaam gannaaw xam-xam bi ak jaamu yàllaam nee naa la sëñ Bachirou seera na ne guddi gune ab dogam mooy téeméer rakk naafi loolu naafila da kuy naafila téeméer rakk ci guddi faraid yi moom kenn waxaale wu ko kenn waxaale wu ko sëñ Baara <clears throat> dafa mel na dafa feelu sëñ Bachir bu ñu koy marsayal ci wax jooju ndax daf ne tajarrada li taaati fi dëhri kullihi ala allahi ma in chaagahu min chawaagiri mu ne dundam gépp dafa futtiku wacc wan gannaaw lépp jëm ci topp boromam dara ci yitti mosu koo soxlal wulif wulis jaamu boromam yabiitu yusalli thumma yusbixu saaiman wa ma juuduhu illa ka amtaari waabili mu ne bu guddee day fanaanee julli bu xëyee yendoo koor muy saa imun nahaarahu qaa imun layla mu ne Mamor jaar ci loolu la nekkoon defe naa lay firndeel jaamu yàllam sax xosnul xaate mi ko yàlla defal nga xam ne nga xam ne fa mu doon waajale julli fajar fa fala fala fala wujjee boromam danañ loolu sax nañ ci dellusiwaat ci mujj gi incha allah bu dee ay jikkoom ay jikkoom moom ay bokkam ñëw ko ko jëkk a seereel mën nañoo ñëw ci maam Thierno te mbokk ku ko rafetal rek daanaka rafetal nga lépp ndax rafetalu bokk dafa gën a jafe moo tax ci balaaxab alquran buy lim ña nga xam ne ëllëg bis penc boo leen séenee da daw daw ngir ragal ne amal ngi leen àq aq ba mu koy lim mbokk la jëkke daf na yow ma mar maru min axihi soog ne wa ummihi wa bani wa sahibatihi wa abi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani li kulli imri'in minhum yawma idin kon mbokk la jiital su soccaat ak ndaay nday li muy li foor foor ak baay soccaat ak soxna li muy jege jege ak doom loolu li muy firndeel mooy rafetaluk bokk rafetaluk bokk dafa jafe waaye nañ jël ci bokkam ku mel na maam Cerno mi bokkal benn baay maam Cerno saaree na jikkoom yu rafet dafa ne nadbun shahirun nada baadin fadailuhu jàmmat ataayaahu bal asqa min addeeni nee na maam Mor Jaara ab tab la woon bu siiwa ci tab nga xam ne ay ngëneelam lu ñëpp xamoon la mooy li sëñ fa sëñ Baar doon misaal wa maa juduhu illa ka amtaari wabili loolu rek la waxaat fii sëñ Baar daf ne ak tabam day mel ne waame wuy sotti su maam Thierno na ay mayam moom daa mel ne moo gën a moo gën a tabe sax waame wuy sàtt sotti ci déeg nga xam ne kenn du xam ndox ma nu muy toll mu ne noonu la ak meloom Cheikh Moustapha noonu la noonu la seere jikkoom yu rafet muy mën a dimbalee lool di di di di ndimbalul way néew ji néew ji doole yi daf ne xaytur ala aramili wa diafi jamiiha fi usrin aw yusrin li wacci raziqi Maamoor Jaara moo daa xet lu jigéen ñi nga xam ne seen borom kër nekkatu fi maanaam rek ñu ñàkk wéeruwaay rek la jubla wax ku amatul wéeruwaay rek Maamoor Jaara moo doon sa wéeruwaay ak mboolem way new ji doole yi jamono yu neex ak jamono yu naqar na ñoo ci yem waaye lépp da ko doon def ngir jëmmi jëm borom mi nga xam ne mooy mooy wërsëgal nga xam ne moo ne moo ne wa maa tunfiqu min shay'in fa huwa yuxlifu lépp loo joxe ngir yàlla mu wuutu lan la fa leneen loolu mooy yàlla mooy yàlla mi wërsëgal sëñ Fallou loolu la seere nu mu daanoon dimbalul ñëpp rawatina waa Mbàkke mu ne wa halil qasri bakkata in alamat bihim shahwaau shahbaau min sanadin mujiri waa Mbàkke ñoom fu ñu jëmati bu bu bu musiba dalate ci seen kaw wala lu ñu xamul lu mu doon ci ban sàng la ñuy wéeru mu ne wane ne moo doon seen wéeruwaay wéeruwaay ñoom ñëpp ci lépp lu leen mas a jaaxal mu ne kon buñ ko ñàkkee mu ne waa Mbàkke ñoom fu ñu jëm loolu lépp day misaal njariñam lu bare ak ju rafet jikkoom ju loolu lépp ndax nit ñi ñeme la ba def la wéeruwaay ku amul jikko ju rafet mënu ko sëñ Baara gis nga ca ya moom nga xam ne moom bu yéeme la noonu lam faqat naahu maaman jaamian lil fadaili taqiyan naqiyan taarikan lirrada lirradaili ñàkk nañu jàmbaar mu ne koo xam ne boole woon na ngeneel ngeneel yëpp melo yu baax yëpp yi tax a mën ak yàlla boole woon na ko ku ku set ku ragal yàlla koo xam ne mboolem jikko yi tee mën ak yàlla yëpp sori woon na ko mu ne muhammada jaara cheikha man la muy jët lahu shabihan yudahi fi nada kullu saili Maamoor Jaara mi nga xam ne kenn musta gis ku mel na moom kii laaj de moom am yitte di sàkk ko ko ci dimbali kooku moom boo ko laajee lu gis ku mel ne ma Mor Jaara ci tabe noonu loolu loolu la seere bu dee ci ay relation dañ ciy jëkke digganteem ak sëñ mag bi Cheikhul Khadim moom dafa jaayanteeg moom dafa jaayanteeg moom lu jiitu sëñ bi dem ci géej gi kon yu baree bari yuñ ciy wax danga xam ne loolu weddi na ko loolu am na téere boo xam ne waa Azhar waaye Azhar génne woon nañu ko di ci di ci di ci tudde ko min madrasati Cheikhul Khadim maanaam ay jëmm yi nga xam ne dañoo génn ci daara yi Sëñ Tuubaa école Sëñ Tuubaa and nañ ca ñu bari foofa boo demee ci ci tarjuma jañ indil Maam Mor Jaara wax nañ ca ne jaayante naag moom lu jiitu muy dem ci géej gi sañ bi tarqiya na ko ci diir bu gàtt gàtt ni mu defal ni mu defal ñëpp kon loolu mooy li gën a wér. loolu itam du lu du lu yéeme ni ko ni ko sunu borom defee mu mag ko ci at wëlbati ko jaayanteeg moom loolu lu fi yàgg la gis nga gis nga euh, yonent bi sallallahu bi mu wootee. am na ñaar ci jaayanteeg moom sayiduna Hamza ak sayiduna al Abbas ay baayam lañu ñoog baayam Abdullahi ñoo bokk benn baay te dañoo jaay njureel gi jëndee ko taali bi jaayanteeg moom ndax loolu moo soob yàlla sayiduna al Abbas baayam la waaye moo ko mag itam moo tax daanañ ko laat daanañ ko laaj buñ ko masaan laaj yaag moom ko mag daf naan huwa akbaru minni waa naa walittu qabla moo ma mag moo ma gën a màgg maanaam waaye maa ko jëkk a judd nag ci ay tegginam kon loolu damay bëgg wax na rek lu fi yàggale sëñ Tuubaa niñ daan jaayante ak yonent bi nga xam ne eh, lu lu lu lu dafa yor mbirum boroomam sëñ Tuubaa noonu la demee woon wet damay wax ne wet lam doon ca boroomam da ca niiru boroom amu ca bokk la cay maye mooy jaayante moo tax ca Jolof mu ne woon sëñ Fallou ak sëñ sëñ sëñ sëñ moo roqee bu saak sëñ Masamba ne leen mm, defe naa ak sëñ Mourou Moustapha defe naa ca la suñu ko ne leen awuma awuma doom awuma rek awuma jarbaat nga xam ne kon moom uma mbokk rek ci loolu mooy li nga xam ne moom la moom moom la doon ci boroomam amu ca mbokk la cay may moom la ko ko may moom la ko ko may moom muy futti ku jaamu yàlla futti ku xidma liggéey loolu ko ko may loolu it moo koy may ñi ko bëgg ci moom noonu rek la demee moo tax itam borom saam jàppoon ca loola di liggéeyal sëñ Tuubaa bu ko defee nag sëñ bi itam nag ànd ak loolu lépp ko ko warmaaloon la warmaaloon Maam Mor Jaara lool danaa koy natt li sëñ Mor May rahimahullah wa radiya anhu moom ma nettali bis ne ma am defe naa dafa ne ma bu mu fàttu sëñ Chouaib bi ko nettali waaye sëñ Mor mooma ko nettali moom ne ne am na dëkk bu mu mas a bu mu a fekk sëñ Tuubaa ci dëkk ñu ne ba war a tàggoo waaye bisub bis ba di bisub àllarba waaye borom sam bi mu tàggoo ba dem nee na sëñ bi wax ne mm, moom de day sama kilifa sëñ ma koo gàntal waaye bisub àllarba day néew na koo ko tàggoon mu mu bàyyi jàmm fa mu jóge fekk jàmm fa mu jëm waaye li ma li ma li ma li ma gën a yitte ci loolu mooy li lim ne day sama kilifa sañu ma ko gantal xoolal wor ma jooju maal ko ba négal ba suba sax wala négal bi sàngam sañoo nga nga nga defe ne sañoo ko ko wax loolu defe naa ne wor ma foofu la mën a yem am yéene ci moom lool am yéene ci moom lool ba di fa yabal magi murit yi magi murit yi tërbiyewu ca moom lay dana ci tërbiye nit ay at yekki-jékki yebal ko ci borom sax mu àggale ci liggéeyam sër sëriñ Moor Njaay tàggaar ca la bokk gis naa ci fu ñu bind siiraam nga xam ne waa këram ñoo ko bind donc boo demee ci téere bii waa ko sëñ Chouaib bi Qurratul Ayni génne woon ci mag yi mag yi mag yi muy muy muy mag yi murit yi nga xam ne ku ne andil nañ la sa siira boo demee ci siira sëñ siirab sëñ Mor Ndiaye Tàggaar da fa gis te ñoom ca ñoom la jógee ñoom waa këram ñoo ne sëñ bi yebaloon na ko ci Maam Mor Jaara ba mu ko ci yebal daf ko ne foofa nag ku ma doyewul ni ma sama bopp doye du ma la fa yebal du ma la yebal ca moom ku ma doyewul ni ma sama bopp doyee ne képp ko ku ko liggéeyal ci sama ndigal da nga am payuk yàlla am am sama pay am pay yonent bi am sama pay am am payam moom maanaam da nga am ngërëmul yàlla am ngërëmal yonent bi am sama ngërëm am ngërëmam loolu defe naa ne lu yéeme mi la bokk na ci yam ñam fa yebaloon sëñ ba ndumbe sañ ba ndumbe nga xam ne seen mbokk la di jàmbaar di borom positif bu ñëpp seer di royukaay ci murit yëpp sañ sëñ Tuubaa yebaloon na ko loolu sëñ Moussa firndeel na ko ca marché ya ba mu doon sañ yàlla sëñ Mandumbe wax na ko fa nee na sëriñ bi mas na koo yabal te naa ko bul jooyog ndigal sëriñ ma mar jaaraay jubal sa mbir te mbir ya sotti na mu ne sax na fa fukki at yu mat bayal ko ay dagg yu mat fajal ko lum masa tawat ak dem ba àgg ci naan euh, def na fa luñ munta qiyaas ko ko qiyaas faf na xalaas mu fab ma fab ma fab ko teg ko ci balaas bopp kerkeraan ya mu fab ko teg ko ci balaas bopp kerkeraan ya kawe na noonu nee na moom Mor Diarra noonu la ko dem mu teg ca dàmbe na seen yaari ngërëm seen yaari ngërëm muy maam Mor Diarra ak ak sëriñ bi mu ne dàmbe na seen yaari ngërëm foo fay la far sampe këram euh, nee leen sunuy nopp taxam lim ay jarooleem ay jaloorem yomb na kon loolu firndeel na mu ngi firndeel ne sëñ bi yebaloon na sëñ ba ndumbe ba mu ko ba mu ko ba mu ko tërbiyaa ba war ko gërëm dafa ne ko demal kër Maam Mor Jaara nag demal demal àggale ji fa moo tax mu ne ko moo tax sëñ Moussa Kane euh, sëriñ bi mas na koo yabal tanaa ko bul jooyoog ndigal sëriñ ma mar jaaraay jubal sa mbir te mbir ya sotti na loolu sëñ Mandum bi wax na ko sëñ Moussa Ka sëñ wax na ko sëñ Mandum bi sëñ Moussa Ka nattal na ko Cheikh Ibra Fall ci ñëm daa li joxoon ndigal ñu liggéeyal Maam Mor Jaara ca rabo ko bi muy dem ci géej gi da ko joxoon ndigal la muy lam addiyaam jam ko war mu di ca sàkk mu def ko ñetti xaaj benn mu koy joxal Maam Mor Jaara sëñ Basiru ci biir Minanul Baaxil Xadim mi ngi wax ne maa ngi fàttaliku sëf yu diis yam daa wàcce Mbàkke moom Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra ci ndigalam ci ndigalam la tuddee doom ci ndigal sëñ Tuubaa ci la tuddee doom Maam Mor Jaara booba ñu wax ne sëñ baa nga gànnaar sëñ baa nga gànnaar Cheikh Ibra am ku feeñ ci kër gi moo yebal ku ñu wax sëñ Maam Mbayloo di ko laajatur sëñ bi jox ko ndigal mu tuddi ko Maam Mor Jaara sëñ Maam Mbay Lo moomu gannaaw bi amaat na wax nañ ne amaat na doom dama na doom ba mu Seex Ibra maanaam laaj Seex Ibra ndigal comme taalibe la Maam Mbay Lo mu la yebaloon gànnaar sëñ bi ko na ko tuddi Maam Mor Jaara moom moomu mu am gone moom itam mu am gan laaj Seex Ibra mu ne ko sëñ Mor Jaara fi mujj ci ndigal tuddi ko ko moo tax am na ko ñax sëñ Mor Lo Maam Mor Jaara lañ ko tuddee di doomi sëñ Maam Mbay Lo moomu ne am na ñoo sax ni tax ñu ne ko sëñ Mor sëñ bi ba mu tur wam ba muy bindal Cheikh Ibra Fall tur bi daf ne ko Serigne Mbacke Mor loolu la bind sëñ Mbacke Mor sëñ Mbacke muy Maam Mor Jaara boobu mooy sëñ Mbacke moom Mbacke mu sëñ Mbacke Mor Cheikh Ibra jël ñaari tur yëpp moo tax muy wax sëñ Mbacke Fall doomam la moo koy wax sëñ Mbacke sëñ Mor Lo mi doomi mu ne sëñ Mor boole ñaari tur yi ci ci pësteefu pësteefu Cheikh Ibra ñoom ñaar ñëpp sëñ wax ne sëñ Mbacke Fall sax moom dëgg nangoo naa ci doomam mu ne joxoon nañ ko Maam Mor Jaara amoon na jamono mi ci biir kër gi mooy waajur sëñ Bachir Fall Alquran mi fi jóge bu yàggul yal na ko yàlla dool li ngërëm ak yërmande si maam Mor Jaara musta musta tàggoog sëñ Tuubaa jamono maraaxil yi sëñ bi bu yi sëñ bi tolloon yëpp fu ci ne tolloon na fa ak moom bañ nekkee Saalum sëñ Mat Lamin wax na ci Irwa ne booba bokkuñu dëkk buñ nekk waaye daana daana ñëw ci moom maam Mor Jaara ñëw ci sëñ bi sëñ bi daa ñëw ci ñëw ci moom itam léeg-léeg mu ñëw ci moom am moom weer wala ñaari weer robama yatihi yamkuthu maahu shahran aw shahrani thumma yarjaa noonu la ko sëñ Mat Lamin waxee léeg mu ñëw am ak moom ña benn weer wala ñaari weer soo ko dellu nga xam jamono yooyu itam sëñ bi daana def daana génn daana génn léeg-léeg kenn du xam fu mu jëm man nangoo naa ci sëñ Moustapha Abdoul Qadir moom laa dégg mu nettali ko ne génnam yooyu daana dem kenn du xam ci moom dara ba ci maam Mor Jaara la ñuy ñëw mu gindi leen ci moom ne leen ma nga barab sàngam kon mel na ne am na suñu borom mi leen boole woon boole gi ñëpp xam ñu bokk lépp am na lu mu leen boolewaat lu kenn xamut bokk na ca nim daa nim daa nim daa bàyyee xel mbirum sëñ Tuubaa ak jamono ju nekk gis nga euh, risaala boobu nga xam ne bi sëñ bi génnee moom it génn kenn xamul fu mu jëm sëñ Bousso man gis naa lettre ba sañ Bousso moo ko bind ak borom saam nga xam maa sëñ Bousso ma nga tàmbalee ci lettre bi mi ngi tudd mi ngi ci mi ngi jóge ci Mouhamad Boussa ak Mouhamad Mbacke mu ne Mouhamad mel ne mi nijaayama mi ci des maga ma yónnee ko Alaaji Askamara mi wan Ndar ngir mu yónnee ko Cheikh Sidiye ca gànnaar ngir lañ ca wax ci lettre bi mooy bu fekkee ñëw na fi ñëw na fi dimbali ñu rek yabal ko mu dellusiwaat xam nañ ne ku bëggoon a aji màkka la waaye ak lu mu mën a bëgg ak mu mën a jëm it yebaloon ñu ko rek ndax xam nañu yow loo ko wax dana ko def loolu leetar boobu ñoom ñaar ñoo ko bind ngir lan yitte woo gu ñu yitte woon mbirum Sëñ Tuubaa kon loolu itam kon day mel ne euh, loolu mooy jamonoy Mbàkke bi ñu sëñ bi ñëwee Daaru Salaam itam Daaru Salaam da am na natli bu buy firndeel ne booba lu xew ci njaboot gi rek Sëñ Tuubaa du génn diggante mm, sëñ bu bi nijaayam ak Mamor Mamor Jaara magam sëñ sëñ Modou xari Boussa mi nga xam ne mooy doomi sëñ Massamba Faati Boussa mi nga xam ne ku jege woon sëñ Touba la ñoom ñaar ñëpp sax nga xam ne eh, xew-xew Daaru Salaam muy gane àdduna ak sëñ mu Moustapha ci njëlbéenu wasage ci tam xarit woowu sëñ Modou Khari nattali na man dégg naa kàddu gi mu ngi ci kaset yi mu wax ne booba sëñ bi dafa génn ci jàkka ji jëm ci kër ga sëñ ma Massamba Faati dogale ko xamal ñëw xamal ko ne ko soxna Amintaloo am na gone mu laaj aw kayit bind ca moor moor la bind ca kayit wa turu moor wi moor wi ñu ko tuddi sëñ tubaa ko joxe sëñ Mourou Khary nee na te baayam lañ def la woon loola moor la sëñ tubaa bind ci kayit wi jox ko nag jox ko ne ko bu sëñ bu soobeeg sëñ moor ñëwee muy sëñ moor jaara nga jox leen ko sëñ bu soobee mu ñëwee la xool xam la lam ci jublu mu tuddi ko Mouhamadul Moustapha ñu teg ci ne sañ bi sax daana yéemu ci nu mu xamee ne loolu la ci jublu woon kon foofu it da nga fa xamee ne li ñuy siiwal ne moo ko tudd tudd ko boppam sëñ ñëw dindi ko dindi ko tuddi ko Muhammad loolu wérut sëñ bi ci boppam sëñ Moor sëñ Moodu Xari nee na sëñ bi bind tuuru moor ci kayit ba kon loolu itam day dindi yu mbokk na ci dindi yu bare bari yoo xam ne yu siiw la te du lu taxaw ba sëñ bi jógee Daaru Salaam ñëw Touba daana fa dem di fa di di ko fekk di fa fekk donga ya nat li bu siiw boobu nga xam ne sëñ Habibu Mbàkke la jógee sëñ bi sëñ bi sëñ bi eh, maanaam Maam Mor Jaara bu masaam demoon Touba dajale taalibe yëpp te mooy njëlbéenu yoonu murit xam di leen dëfal di leen xam xamal leen ñu gën a dëgëral seen i positif ndax liñ fi liñ fi liñ fi liñ fi soxla mi ngi fi na leen leen dajale négul ba dajal leen soo ko wuti lum leen faye lu lum leen añale lu mu leen faye def leen da ko wuti ba am ko soog leen a dajale kon mi ngi leen di dëfal di leen soññ ngir ñu takkaat seen i laxasaay Mamour Diar taxawaay boobu la amoon ci sëñ Touba bi sëñ bi jógee Touba ñëw Mbacke Bari gis nga laatar boobu leetar boobu mu leen bindoon nga xam ne moom la ca jiital ayyuha shaqiq la ca jiital wax borom saam mu leen wax falaa yakum fi sudurikum xaraj maanaam bu leen dara jaaxal ci man ñàkk ngeen ma ñàkk a gis ci xalwa rek laa nekk te te bu ñu ma génnee rek danaa génn na ngeen xam ne lépp luy ñaawal ak bokk wala lu sàmm lu lu lu lu lu lu lu lu lu sàmmonte ki teggin du ma ca nekk sama diggante génn leetar boobu Maam Mor Jaara la ko la ko adressé ak bokk yëpp nag waaye turam la ca jiital ci géej gi itam ba mu fa nekkee am na leetar boo xam ne ba tey mi ngi fi lii may wax yëpp boo demee ci xekma baaliga boobu sëñ Abdul Ahad génne woon nga xam ne moo dajale fa leetar sëñ Tuubaa yeeg xekma yi boo defee da nga ko ca da nga ko da nga ko ca fekk matar boobu sëñ bi nga ko tàmbale min abdillahi xadimi rasulihi muhammad ibni muhammad ila axihi shaqiqihi muhammad ibni muhammad nga xam ne seen ñaar li sëñ moorum sëñ seex may doon wax ca ca wolofal ba ñoo bokk tur muy ahmadu bnu jaara ahmadu ahmadu muy ahmadu bnu jaara ahmadu bam jaara doomi soxna jaara ahmadu bamba doomi soxna jaara loolu moom loolu sëñ bi firndeel fii ci lii mu bind ndax muhammad ibni muhammad la wax ila axi shaqiqihi muhammad ibni muhammad muhammad dooy muhammad mooy bind lettre bi jëmee ko ci mbokkam xaritam ki mbokkal ndaay ak baay di muhammad ibni muhammad nga xam ne kon seen ñaari tur benn la ne ko maa ngi koy wax ci biir ne ko mbokk yëpp nañ ànd ak yow fii am ren waaxit nañuy na ngeen nañuy ñëw ci yow ci yow min ka la ko wax ci yow ngay seen kilifa di xa ngeen di xàccandoo di dóorandoo wal taraxam xumbal yu bët jiluka nañu la na nga leen yërëm ndax yaay dimbal leen yaay seen kilifa waaye ñoom it nañu la wormaal nañu la màggal nag nañu war nañu màggal ne ko wala yakunu al ayaalu wan nisaa maa ibrahima fi tuuba in amkana wa illa fi ay makanin shaa allah ne ko njaboot geeg jigéen ñi nañ nekk ak Ibrahima muy maam Thierno ca Touba nga gis loolu maam Mor Jaara lay waxal ne ko njaboot geeg jigéen ñi nañ nekk Ibrahima ca Touba bu mënee nekk bu munta nekk barab bu soob yàlla rek dafa bàyyi boppam boromam Touba moo ko gën a ray bu Touba munta am nag fu soob yàlla rek nañ fa ne waaye loolu maam Mor Jaara la ko la la la ko bind di ko wax loolu nga xam ne kon day mel ne. risaala boobu Mamour Diallo moo ko war a jàllale ci ci bokk yeeg ci maam Thierno maam Thierno gis nga taxawaayu yu am solo nag yu mat sëkk yam taxawoon gannaaw sëñ Tuubaa wuutu ko kuutaay lu mat sëkk ba wax nañu sëñ bi bam dellu see def ko ne ndax bu ma bu ma toogoon nga dem ndax danaa ko mën a nii loolu rek da koy firndeel jàmbaare gum jàmbaare gërëm lu ko gërëm daarul man naan bi sëñ bi ci géej gi ba ñëw daarul man naan ba tey dama lay indil maraaxel yi nga xam ne fu fu ci sëñ bi toll rek maam Mor Jaara nga ca wetam nga ca wetam daarul mën naan fa la xew-xewu mm, sab bi gànnaar fa la xewee sababu gànnaar fa la xewee mooy bi kër gi amee jiyee ju fa am sëñ Mandoumbe ñu yeesal kër gi sëñ Mandoumbe yónnee ay taalibeem te ngeej ñuy jënd ay bagage ba ñëwee am ko ñu romb muy làmb bagage ya ne ngànnaay la daal di daal di tàmbali jaxase yi tàmbali waat ba ñu ñëw visiter kër ga ba xew-xew yu bari am ci ñu woolu sëñ Tuubaa am na ca woolu yu ñu ko daa sëñ Moussa Ka firndeel la ko ci saw Chakour Jéeri ji am na boo xam ne mi ngi wana ne maam Cheikh Anta moo ànd ak maam moor Diarra ak ñam àndal dem wuy jël sëñ Tuubaa gis nga maam maam Cheikh di présenté naan ko Allaaji Cheikh ne ko kiley boroom saam mooy magi Cheikh Bamba te mën naa wuutu daam sëñ Moussa Ka natt na ci saw Chakour nga xam ne booba kon ci loolu daaru mën naan la maam Mor Diarra ànd ak maam Cheikh Anta ñamu àndal dem wuy jël sëñ Tuubaa sëñ maam Cheikh ko présenté kooku ñu wuy ji woon ndawal tubaab bi alaaja cheikh ne ko kii day boroom saam mooy magi seex bamba te man naa wuutu daam bi sëñ tubaa ji demee gànnaar fa la amee werdul maaxuud werdul maaxuud bu mu ko amee rek bokk na ci njëkk a def yónnee yónnee ko maam Mor Jaara ngir mu jëfe ko yónnee ko leetar ba na ñoo xam ne mi ngi woon ci kër kilifa yi mooy mooy lam fam ko ko yónnee alaaji sëñ bosa ilimaan wax nañ yoroon nga xam ne ab sëtama yoroon na yoroon na lettre ba jolof gannaaw bi suñu jógee gànnaar ba dem jolof jolof fekk fi sëñ Tuubaa dafa jafe woon lool tubaab yi dañoo tegoon ay ijraat ay procédures yoo xam ne bu procédure yoo xam ne boo bëggee dem faaw da nga ca jaar soo ko mën a àgg gannaaw bi ñuy def ay rapport nag rap am na rapport wax ne weeru mai 1908 lañ ko def mboolem ku mag ku fa jaar wala ku fa yónnee jëm ci sëñ Tuubaa dañ koy def rapport yónnee ko tubaab bu bi bokk na ci seen seen rapport yooyu bañ def le 2 mai 1908 boo demee ci archive maga ca wax nañ ca ne Mamor jaara yónnee na mu dëkkoon Bakke di magam yón Mamor Diarra yónnee na ci sëñ Touba Jolof jox ko addiya mboolem ñam ak gis ca ca ca ca foofa ñu yónnee fa wala ñu dem fa ci addiya ña ca joxe ña ca joxe xaalis ña ca joxe xaalis Mamor Diarra moo ci ëpp mablax bu mu joxe ci addiya loolu moom loolu moom gis naa ko am na ñoo xam ne yeneen la ñuy joxe waaye ña joxe xam ne xaalis la moom gis naa ne lim ba Mamor jaara joxe moo ci ëpp ndax diw jaar na fi yor na nangam ci xaalis yóbbu diw jaar na fi yónnee nangam diw yónnee na fi nangam nangam waaye ña ca ña ñañ wax ne ñoo joxe xaalis moom Maam Mor Jaara ci ëppale kon loolu li mu firndeel mooy daana liggéeyal sëñ Tuubaa bi mu ñëwee njaareem moom dafa daa dem di fa yàgg ba àggoon na ci sëñ bi sëñ bi da ko faa tabaxalun kër sëñ Basiru nattali na ko foofu it ba tey ba tey am na nattali bu ñu fay nattali boo xam ne moo xam ne wérut ba tey danañ koy nattali ñu ne am na boo xam ne daa ñëw sëñ bi dalal ko ci mbaar ngir wan ko ne kër gi kër kër alxuraan la loolu itam du lu wér man ndax sëñ ba Bachir nettali na ko ci téere bi wax ne sëñ ma jëmb silla moo ko nettali sëñ ma jëmb silla ci ñoroon alxuraan ji ci la bokk mais daf ko ne Maam Mor Jaara mas na ñëw boo xam ne sëñ bi dalalu ko ci kër ga waaye kër la ko defaraloon ci saalumu kër gu mag gi mu ne kër goo xam ne gu am valeur la kon da ko kër goo xam ne banaahu li ajlihi nafisan noonu la ko sëñ Basiru waxee ndax kër gu ëmb valeur la ko defaraloon kër ga mi ngi woon ci diggante kër sëñ Mandoumbe gi ak kër sëñ Afi foofu la nekkoon ci Saalumu kër gu mag gi maanaam fa la ko dalal gannaaw bi nag bi ñu gisee ñëw ci kër gi nee na ñu gisee sëñ sëñ bi ne ko sama kër gi ak li muy yaatu yaatu day maanaam ak néegam yu bari yi li tee ma dalal la fi mooy li muy yaatu yaatu ak néegam yu bari yëpp maanaam alquran rek ko tax dama koo jagleel alquran maanaam loolu loolu loolu loolu nettali na ko nga xam ne day mel ne lëm jublu ca di ko leeral loolu mooy rafetal wan ko ne li ma dalal la fi rek mooy dama ko jagleel alquran moo taxoon mu wutal ko kërug boppam kërug boppam ca wet ga waaye loolu defe naa ak fonkeel ak fonkeel lay lay lay lay wane naka noonu mm, ay doo ay gannaaw diggante mi sëñ bi alaaqaat yi diggantee mag ay doomi baayam maam Thierno indil naa la seere bi mu seere woon ci moom ci bayit woowu maam Cheikh moom dafa daanaka maam Mor wax wax nañu moom la defoonub sëriñam fonk ko lool lool lool lool am na euh, ku ma dégg ku bokk foofa mu wax ne maam Cheikh Anta tudde na tudde na maam Mor Diarra ñeenti doom ñeenti doom te ko taar li may xamal ne wér na mooy ka ko doon wax doom ju ne tudd na ndayam fa mu jógee naa la ci tudd ñaar am na ci koo xam ne soxna Daba mii fi nekk tey nga xam ne dooy maam Cheikh Anta yi mel na ne moo fi des soxna Daba Mbacke am na ku mbokkaloon day koo xam ne maam Mor Jaara la ko maam Cheikh Anta tudde soxna Baali Muntaqa mi mu sëñ Muntaqa mi soxna Maguette gay mi ko jur way juróom soxna ma Diop ma Cheikh Anta ko jëkk yor kam amoon maam Mor Jaara ko tudde kon loolu mu firnde la kooku nag lim na ñëpp nag ku ci ne euh, ndayam ba mot ñeent ñeent ñoo xam ne day mel ne sëñ Cham mi fi nekk moo ci gën a siiw waaye ñeent lañu woon ñëpp mu tudd li Maam defe naa ak jàpp ak fonkeel ak yéene foofu la mën a yem sëñ Cheikh Thioro seen rakk gis nga ba mu koy marséyal lam wax dafa wana ne daanaka moom sunu baay la woon faqat naa walidan min qablu lakin naseynaahu bihi kasral xuyuri ñàkkoon nañu waajur bu yàgg waaye fàtte woon nañu ne sax amuñu waajur ngir Maam Mor Jaara lamu mu daa def ci nun ci biiw defe na loolu dara mënu koo féete kaw mag yi murid yi noonu la meloon ak ñoom ñu ci kër yu ci bare bari boo fa duggee da nga fa fekk turandoo Maam Mor Jaara ka sëñ daam lu Abdourahman loo sëñ Mor Jaara loo maga fa kër Cheikh Ibra Sarr Cheikh Mam Mor Diarra Sarr ma nga fa kër sëñ Mouhamad Lamine Guèye ma nga fa Cheikh Ibra Fall tudd naa la léegi sëñ Bakke Fall sëriñ Modou Moustapha doomi sëñ Tuwaay sëñ Modou Moustapha da fekk sëriñ Bakke Madina Mam Mor lañ ko tuddee kër Cheikh Mouhamadul Fadal sëriñ Mam Mor Cham mi ngi fi Mam Mor lañ ko tuddee ba ci ci kër kër Cheikh Mouhamadul Mourtada caatum sëñ Tuubaa ba ci kër sëñ Mouhamadul Mourtada am na fa mm, maam Mor mag mi am na maneen maam Mor moo xam ne maam Mor Jaara lañ koy wax moom la ko sëñ Mourtada tuddee sëñ Jaara Xasan Njaay ko amoom ak moom relation la boo demee ci Minanul Baaqil Xadiim sëñ Basiru wa seera na seen seen diggante bu rafet biti yoonu murit sax biti yoonu murit noonu la fa noonu la fa demee woon alxaaji Abdula Abdoulaye Niass day mel ne relation ak sëñ Tuubaa sax alaaqaam ak maam Mor Jaara moo ko indi ndax bam bam bam bam bam bu wujjee boroom mu ñëw di ko jaale si la jaar di ko jaale si sëñ Tuubaa loolu moo indi sëñ bi jalaa lay Jalaalayni bu mag boobu jox ko bam way way way ko wayloo ko doomam Mouhamad Khalifa sëñ Mouhamad Khalifa waayam yu yu siiw yooyu yu am solo yooyu loolu la ko indi woon mooy diggante Alaaji Abdoulaye ñas ak Maam moor Jaara jàmbaar la woon nag ko réaliser lu baree baree bari la suuf moom defe naa jamonoom ci ñi ko ëpple woon la bokk bokkoon na ca ndokk ndokk nga xam ne fa la féete woon ab taawam Serigne moor Soxna li indi borom saam mooy saam gii nga xam ne léegi bokk na ci Touba loolu lépp li muy firndeel rek mooy dugg gum dugg ci biir sañ Touba seen lépp di lan ba boo nee boroom Touba sax saam duggaale ci biir saam ci biir Touba loolu rek lay firndeel misra gi ci yoonu daarul mooto bi nga xam ne sëñ Cheikh Stawalo moo féete woon loolu lépp kon di wane di wane njàmbaar kon nga xam ne dundal na suuf li nga xam bokk na ci sunu borom li tax mu indi indi doomu aadama ci kaw suuf mu nekk xalifaam jaamo yàlla waaye dundal suuf si kon jaamu yàlla wax naa la lam ca daa def waaye dundal suuf si itam wax naa la lim ci def doon jàmbaar lool. ci la nekk nag ba ba ba ba ba jamonoy Talsas Talsas 1339 ati gàddaay gi 1921 ci la ci la dellu ci boromam fajaruk altene fajaruk altene. ci la dellu ci borom di ñaar fukki fan ak benn ñaar fukki fan ak benn ci weeru kori atum talchas 1921 la dellu ci boromam ni ma la ko waxee léegi mu am mujj gu rafet lool mujj gu rafet lool ndax fa mu doon jàppee fa la wujjee boromam gis ngeen ci xadiis bu siiw siiba ma minkum min ahadin yatawaddau fa yuxsinu alwudua summa yaqulu xiina yafraxu min wuduihi أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن وأشهد وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله mu ne amul kenn kuy jàpp rafetal njàpp ma bu noppee mu wax baat yi illaa futihat lahu abwaabul jannati yadxulu min ayyihaa shaa mu ne lu dul bu danañ ko ubbil bunti aljanna bu ko fa neex juntu arjanna ak thamaniya bu ko fa neex mu mu dugge ca moom la sëñ Tuubaa di natt la ci mujjug tasawutu sixaar ruwiya an xayril baraaya anna man baada taharati yaqulu fi laalan ashhadu lil axiri yuftaxu ida abwaaba jannatin lahu la yanfutaa min ayihina shaa yadxul walakin xulfuhum fi zamanil fatxin jala kon jamono bi nga xam ne nit ki bu jàppee ba noppi wax baat yooyu ñu ubbil ko bunti aljanna foofu la Maam Mor Jaara delloo ci borom daf na xosnul xaatima munta munta munta weesu loolu sëñ bu mag bi jox ndigal sëñ Bàkki Busa mu taxawu ko seere ko seere bu kawe boobu seere bu kawe boobu nga xam ne ba mu ko tiimee daf ne gannaaw bañ tiimee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tiimaatuñ fi jëmm ju gën jëmm ji defe na loolu kenn mënut a seere ci Maam Mor Jaara lu lu seere bu gën a kawe boobu sëñ Moustapha am sëñ Abdul Xaadir nga xam ne gëstukat la xamoon mag ñi loolu di gëstu ñoom nettali na ma boppam ne sëñ bi naroon naa ñëw jaale si Maam Mor Jaara jóge naroon naa ñëw ba tàmbal ba génne lu war waay wi ba taalibe yi tàmbalee roñ bagage yi indi Mbàkke nee na sëñ Abibu moo ko ko nattal nee na ko boobu mi ngi ngaabu nga xam ne am nañu ko fa ko fa romb yor dar bi jëm Mbàkke wane ne sëñ bi day dem gannaaw bi ba mu génnee la dugaat wane ne amul ndigalul dem loolu da ko daa def lu bari jógee na njaare 1912 sax bëggoon a jëm si Touba ñëw ba xuuru Mbàkke yendu fi gannaaw mu wëlbati ko amul ndigal te booba ñaarol ñaanal loon ko ñaanaloon lan ko euh, autorisation ci tubaab yi gis naa gis naa gis naa euh, talab bañ ko bindoon ak autorisation ba nga xam ni tubaab bi mayoon na ko mu dem ñëw na ba xuru mbàkke ba yendu fi waaye wëlbatikuwaat ne amuñ ndax jotul ndigal nga xam ne day mel ne ndigalul ñëw Tuubaa moom ak diggante bi la amagutoon waaye waaye amoon na yéen ay ñëw jaale si ko loolu lépp di wane ak rafetal ak fonkeel gum ko fonk ba rafetal gannaawam bokkoon na ci rafetal yi sëñ Tuubaa rafetal gannaawam mooy ñeent ñi mu fi bàyyi ci waa kër jigéen ñi am na ñoo xam ne am maanaam sëñ bi gannaaw Maam Mor Jaara da leen a jëlee lu Mbàkke indi leen jaareem wutal leen kër di leen jox njël ngir ngir mën leen a toppatoo na mu ware loolu maanaam ñooñu waaye juru sëñ Cheikh Penda ca la bokk soxna Penda bu yo mi nga xam ne sëñ bee ko jëkk a yor bu am ci soxna Fatou Mbacke gannaaw mu jox ko Maam Mor Jaara moo am ci sëñ Cheikh Penda ak ma bokkal doom surtout soxna Penda Bouye boobu di sëñ Modou Mbacke sëñ Modou Gelongal nga xam ne mooy doomi soxna Fatim yi doomi sëñ Touba surtout sëñ soxna Penda Bouye yaay maamam bi muy dem da ko yóbbaale njaareem muy muy muy tut tànk doom doomam moo ma ko nettali ne seen bàyyi leen ko nettali nga xam ne boobu moom ma ma nga fekkee loola ca njaareem muy waa kër Mamor Diarra yi sëñ bi jëlee woon Mbacke yóbbu leen jaaram ngir mën leen a taxawu nga xam ne moo leen wan a taxawu gannaawam kon rafetal na seen diggante ci nekkam waaye rafetal na ko lool gannaawam diggee kër seen kër yi sëñ bi xàmmeewu leen woon kër Mame Mor Diarra ak këram xàmmeewu ko woon am na ci njabootu Mame Mor Diarra ñoo xam ñu ci bari ci jigéen ñi moo leen yóbbu ñu dem kër moo leen jox ña ñoo àndaloon soxna Fatou Kani moo ko joxoon Soxna Afiya Bousso nga xam ne euh, seen mbokka moo jur alxaji Bousso alxaji sëñ Bousso Ilimaan mi nga xam ne ñëpp xam nañ ko soxna Fatou Kani dooy Mame Mor Diarra moo ko jur sëñ bee ko joxoon waaye juróom Soxna bu sa ba fi mu ne nii ñaari imaam imaam yiy jiite jumaa ji maam raati bi daal sëñ sëñ sëñ sëñ aafiya ak sëñ baara seen jur yi euh, seen soxna Fatikaan yi mooy seen maam soxna Fatikaan yi maam Mor loolu day firndeel la sëñ bi waxoon ci jumaa ji ne dafa bëgg bu àggee sëñ Bousso beeg sëñ Mor ñoo koy jiite loolu sa soxna Fat Ja dañoo wax ne ba mu dafa déggoon la mu sëñ bi wax loola moo tax bis bi jumaa ji mu dégg sëñ Alaaji sëñ Bousso ilimaan di jiite ba mu tàmbalee dafa daanu keroog ndax sëñ Bousso beeg maam Mor ñoo ko seq kii mooy baayam kii mooy ndayam Euh, ba fi mu ne nii day mel ne loolu muy wéy ñu ëpp ñi fi jiite rek diggante Mamor Jaar lañu ak sëñ ak sëñ Bousso bi day mel ne sëñ Tuubaa moo ko bëggee noonu sëñ Mor Penda sëñ Mor Penda mag bi joxoon na ko dooy Mamor Jaara sëñ Matloo Isa sëñ sëñ sëñ bi joxoon na ko soxna Kanni dooy Mamor Jaara ñu ngi fi soxna Kanni moo ak sëñ Ismaayla ñoo bokk wayjuru jigéen sëñ Matloo Isa moom moom moom sëñ bi kon ak nja am na wax nañu ne sax am na ci am na ci koo xam ne ci ci ci mag ñi dafa dafa joxe woon digal ñu wutal ko ci njabootu boppam moom sëñ Tuubaa ñu ko ci kenn bañ ko bañ seetee ci kër gi gisuñ ko mat a dem kër ci kër sëñ bi mu ne nañ ko seetal kër kër kër sëñ Moor kër sëñ Moor Jaara ndax sama doom ak doomam ayam wax nañ noonu la ko sëñ bi waxee kon loolu xàmmee wutoon ak moom loolu it lañ cay déggee rek mooy nangu gu sëñ Tuubaa nangu dogal bu yàlla yàlla moo ko booleeg moom ñu bokk wenn waajur wu góor bokk wenn wayjur wu jigéen loolu dogalu bu yàlla la sëñ bi nag dafa nangu dogalu bu yàlla li yiñ ko daa tagge yi ko ci gënoon a neex mooy ku nangu dogalu bu yàlla la Cheikh Sidiya tagg na sëñ Tuubaa tagg yu bari waaye ba mu ne ko yarda ida jarat al umuuru musalliman ilman bi anna ilahahu ajraha sëñ Tuubaa day gërëm dogal ba yàlla fu mu wàcce rek day day jébbalu gërëm ndax xam ne yàllaa ko dogal nee na ba mu waxee loolu sëñ bi daf ne tagg na ma de mi ngi may soog a tagg tagg na ko yu bari waaye ba mu waxee loolu nanga dogal ba yàlla loolu rek ca ngay xamekoon sëñ Tuubaa fa mu teg Mamour Diarra ngir ngir nangu dogal ba yàlla xam ne yàlla moo leen boole lii mu lii ñu lii ñu bokk kon defee naa bam ba gannaaw bi itam bokk la ci wane fonkeel gum ko fonkoon dafa joxoon ndigal mag ñëpp ku mën a am waay rek na ko marsi yàlla moo tax mag ñëpp daanaka ku ci mënoon waay rek andil nga mun andil naa la bu sëñ Modou Moustapha bu sëñ Fallou euh, sëñ Mor sëñ Mor sëñ Mor Roqoya Boussa ak yeneen i mag yeneen i ba ci sëñ Baara sëñ Baara marché am lu ma la ci génneel foofu sax fa lay tëjee euh, ca la mu jeexalee la mu jeexalee marché yamba dafa ne falaaw qaabidul arwaaxi qad qabil qad qabila al fida fadaahul wara kullan bi kulli al afaadili mu ne malaaka mi jël arwaax day mi rocc ru yi bu nangu na jot bu ñëwee bëgg a jël kenn ñu ne ko teg nga fay bàyyi te jël ñii mu ne kon day mboolem nit ñu baax ñi danañ danañ leen jote Maam Mor Jaara ñu jël leen mu jël leen te moom mu ne fi bi kulli la faadili la wax loolu defe naa defe naa yéene foofu la mun am mu tekki fa askanahu rahmaanu jannaati adnihi tadru alayhi alxiiru bayn xuuru bayn al awaili mu ne yàlla na ko yàlla dëkkal ca ajjanaam ja xéewali ajjana yëpp wër ko loolu ñoo ngi yeesalaat ñaan googu ci moom